dañ faa def turu jumaay waaw ñu fa turu xarim xom xaax man su neexee suba suba mën naa woote arena te nit dëgg yëppay ñëw nit dëgg yëppay ñëw yow boo ku mel ne Papa Rogo Ndiaye dina lu mu bon dina indi 19000 car mm-hmm. mais est-ce que ñooñu dinañ ñëw laaj social borom Papa Imo dina indi 49000 car mm. mm. participer ko def ci élection man man wàllum ko dise man Karim doon nekkoon man maa koy wooteeti man dootuma ko wooteeti ndax wàllum cotiser daa am ku ko moom man wàllum cotiser man Karim Xurum Xaax du ma toogati fii naan nit na ma cotiser kii na ma cotiser kii na ma cotiser ndax fii laa woote nañ cotiser ma xam nga laa am balla su ma ko wax doo gëm 6675 laa am 6675 ci un mois ci un mois ci un mois muy nitu dëgg dëgg di taxawal lislaam teewoon lépp man Karim Xurum Xaax ma am 6600 6600 laa am ci li nga xamante ni mooy kañot pour ma dem taxaw ci penc benn booy barki dem moo toog mu ne da ngay sonk sonklu man ko bu ma ko waxaat ma ko waxaatee dañoo jàppante ma ak man du ma fi taxaw ne un mois ñu changé réew mi ñun ñoo fi nekk nit te boycotté leen ko élection yi ñoom ñëpp bañ leen wooteel toog seen kër a dem ba ah, man maa ko man comme di la sant ah. maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di la sant parce que yar gi nga àndal ba may ma moom kontaan naa ma ak damaa jaaxle. <laughs> xam naa ñu bari nañ jaaxle sama dal gi dama. da ngaa jaaxle boobu def non Karim a waxaat de. damay wax mu ne ma damay wax damay wax yow jaaxle boobu sa jaaxle des na. xam nga Karim dañoo nangu say teere nangaguñ say teere après leneen lañ nangu si yow. <laughs> Karim li mu ñëw télé bariwul. dama ko faju. <laughs> dama jël sa rendez-vous. ndax feebar. da nga da gis nga kii def feebar. waaw ñu ko ñaan yàlla fajal ko wéral ko. mu dellu si waat ci xelam. maa ngi nuyu waa Touba. di nuyu ñu fi toog ñëpp. di nuyu ñi xam ñoo ma jàppale ci projet Touba. Mm-hmm. Euh, bi tey loo xam ni moo metti trop man Cheikh Bara. Euh, ñun ay talib Sëñ Touba lañ ay sët lañ ci Touba ñu nekk ñoo xam ni euh, war nañoo mën a war maal dama doon wax naan Macky Sall moo gën a bon man dama ko doon wax naan Macky Sall moo gën a bon. mais ndekk Macky Sall bonul Sonko ko a bon. Hmm? Macky dafa nangoo ci man ñett Sonko nangu ci man juróom-ñeent fukki terrain eh, wax ma loolu sax lu metti man dama yar pison di yar xëti. Hmm. Eh, mu nangu ci man 456 xëti yoo xam ne këram ay pis yu naaw dem këram mu téye ko. a raas la. Euh, voyageur. dama ah, voyageur dem. ay ay pison voyageur waaye loolu méttiwu ma eh, dama amoon ay terrain yoo xam ne dama ko amoon muy. Euh, onze terrain yoo xamante ni dañu ko jël nangu ko sama loxo nga xam ne desetuma benn terrain may wax ak moom euh, am na loo xam man dafa ma jaaxal parce que Sonko dafa man da koy xool sax danga koy xool mu mu mu mu mu mel ni ku ku ku ku ku ku ku Sonko buy wax sax day bonde mu mel ni yàlla bu ndaw. mais man gis naa nga récupérer ci sa bureau say machine à café say foto yoo lonkoon ak affaire yooyu est-ce que. loolu jot nga ci au moins am na ñoo xam ne jot dara. de man sama yëf ko moom laa wax gis nga ki def loolu yëpp Sonko la Sonko ni mel dañ ko war a wax am loo xam ne Sénégal ñoo ko bëgg a xool te loolu duñ ko seetaan parce que koo xam da nga nekk ci réew di bondé di dox mel ni yàlla bu ndaw nit ñi xale yi sax di ko tuddee mu jàddit xale yi sax di ko woyal yonent bi mu jógee Màkka. li doon way garmi la la. talaal badil naa di ko wayal mu mel ni ku moom kër gi lu mu laaj ñu jox ko ko mu commencé di di di roppat xale bu toll ni mag ma toll ni man dajale samay terrain mu nangu ko mm-hmm. jël ko nga xam ne ñun amuñ lu dul terrain ma doon ànd ak moom mm-hmm. parce que dama fi dama dem dama dem ànd ak Sonko jóge fa ànd ak Bara Dolly euh, ànd ak Amadou Ba jóge fa delluwaat ci ñoom may delluwaat ci Amadou Ba ñu dem nangu samay terrain loolu nag laa bëggoon di wax nañ ma jox sama terrain loolu rek laa moom mu fi indi du leneen. d'accord nañ ma jox sama terrain parce que man dama ne koo xam ni mosuma jooy. jarul jooy sax. jarul jooy parce que parce que parce que suuf la rek quoi. suuf la xëy na malentendu am na si diggante te loolu war naa mën a kii quoi. garab ni ku ni ku baax gi. Mhm. dëgg koo xam ne daal dëgg-dëgg askanu Touba taxaw na leen de. Mhm. dëgg-dëgg terrain yi. yi nga xam ne moom lañu wax moom lañ jël même bu dee ñaar sax dañ ko dellu hmm. fii ñëpp lañ jël de bu dee yaakaar ñun ñun ñun liñ jël si ñun kenn xamuñ ko waaye daal dëgg-dëgg dañuy ñaan rek ñu delloo ko dëgg. même bu dee benn moom ma yoo xam moom du ma sax faale. Hmm? ma yoo xam muy bonde mais la yàlla bu ndaw. ndox muy bonde moom. moom mu gën a naqari. suuf ko day def lu nga jàpp te le muy bonde di dox mel ni suuf du dee. mais li mu xale yi li mu gën a naq ñu ko mu jaddiit yàlla bu ndaw bi Sonko mu yàlla bu ndaw la. mais moom bu la joxul terrain man man Sonko bu la joxul terrain bu la joxee pigeon yi peut-être dina wàññi affaire ak ak ak dafa mel ni dégg naa ak say baramaan yu bari. waaw nangu na sama ñetti baramaan. <laughs> ginaaru baramaan. waaw yu tiir loolu nag xamul lu ko Sonko <laughs> yu tiir ñetti baramaan mi ngi këram. nangu sama ginaar nangu sama lépp loolu rek moom fi indi woon. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant. war ah, na arrêté jël tam sama ñetti tuuj. waaw tuuj eh? lan la. ay kaay déet kii. kan la ginaaru dend. ginaaru dend dend. ginaaru dend mooy lan nag. su nga daal dama jox sama affaire. Eh, kon nag dañuy delluwaat ci ci eh, caat waaye ñu nuyu Taïb Socé ba noppi doo a ñëw ci ta ci caat ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Mouhamadou Biteye. di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi wax dëgg yàlla di wax rabbi sarax li sadri wa yasri amri waxlul uqadatan min lisaani yesu xawli eh, di nuyu Mor Thiam Mor Seck mm-hmm. ñu koy wax cat mm-hmm. eh, donte musique eh, du ñu ko faral di di déglu mm-hmm. mais bokk na ci waykat yi nga xam ne bi mu woy Fatou boobu bokk na ci ñi ma doon déglu. di nuyu ki nga xam ni mooy Kase Maabo. vraiment di kontaan ci jotaay bi di am mbégte daal di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi. leen ñaanal yàlla yàggal leen. amiin te te yokk seen i fan. Ah, di ñaanal ñi ci prison yi nekk ci kaso yi ñi ci xat-xate. amiin yàlla génne leen décanté situation yi. amiin yaa eh, suñu mbokk yi nekk Bakel. xel du jug ci ñoom. Mhm. dëgg yàlla ñu ngi ñaan. fu la boobu nga xam ni jéggi na palaasam fekk leen. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla saafara lépp moom mi nga xam ne mooy mën a saafara. Mm-hmm. ku dul moom mënoo saafara wax dëgg dëgg la dëgg la indi lépp mën na indi et mais moom bu d'accord pour saafara du saafara dëgg la ñu ngi am mbégte kontante bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax xanaa ma dalal ñii rek balaa ñëw maître El Hadj Diouf ak ki nga xam ne moo di. Euh, président wu association ñi nga xam ne ñoom ñoo am euh, problème mu wax dañoo dër waaw. waaw mais waaw mais doo toog. waaw toogal tag waaw maa raw ñu ngi rek waaw tagal sa micro fi mu toll xew. waaw fi tool da ngaa xew. da ngaa xew ah. damay lu bees. waaw léegi takkal sa micro ba pare. takkal sa micro ba pare. yaa xam wax rek. bëgg ñu ñëw tuuti nag eh, ci ci ci ci carrière bi ñu ñëwaat ci euh, jëm nag ci euh, jamono ji euh, Thiat Seck est-ce que. ci wàllu musique am bi mu nekk ndax am na ay bërëb yoo xam ne euh, Thiat Seck ma ngi fay yëngu nga xam ne semaine bi dañ naan par exemple samedi tey wala dimanche tey mhm. wala ñu ne ñu ne vendredi bi Thiat Seck est-ce que am nga ay comme ñi koy ñeneen ñi amee des fois ñu ne bés vendredi bu jot diw fii lay tëgg wala samedi bu jot diw fii lay tëgg ndax loolu Thiat Seck ak groupe am ñu ngi koy def ci jamono ji waaw ñu ngi ko doon def wax dëgg yàlla mais fan yi fan yi passé dañu posé woon mhm. ndax mooy li ma sànq rek booy doon yàgg da nga naan tekk rek mhm. après tekk dina la woon yoon ndax eh, bu at bu ne tëgg naa fa. Mhm. tëgg na Five.